asalaamaaleykum daleen ak jàmm beneen yoon ci seen youtube bii di Sencours TV ngir jàng angale ci wolof ànd ci ak Mr Ba tey nag bi mooy si ñaareelu vidéo bi aju ci wàllu aéroport maanaam lu aju si ci aéroport lan lañ ci war a wax ak lan la ñu war a wax lu ñuy wax lan la ñu war a tontu incha allah ok. di la fàttali rek bu fekkente ne abonné goo te nga bëgg jàng angale ci wolof ci yoon bu yomb incha allah man nga abone ci chaîne bi te di partage itam li nga xam ne mooy vidéo yi ok bi passé gis ngeen euh, mu ngi ajoon ci vocabulaire yi nga xam ne moo seq daanaka airplane dont ne am na yu des incha allah mais danañ ci continuer ak yéen benn par benn ba mu gën a leer ba ngeen a xam lan ngeen war a wax foofu walla lan lañ fa war a wax incha allah go to the airport go mooy dem go to mooy dem ca comme ma ne go to school dem école go to the market dem marché ba noonu laa mën a waxee na go to the airport dem ca airport ba ok nañu tàmbali incha allah nañu commencé I have to take a taxi to the airport. I have to take a taxi to the airport. man dama war a jël taxi dem aéroport ba dama ko war a jël wala I want to take a taxi to the airport dama bëgg jël taxi dem aéroport ba ok the plane will begin boarding in ten minutes avion bi de dina commencé yëpp wala nit ñi danañuy commencé dugg ci ay avion gi ci fukki minute maanaam distance wala durée bi des pour avion bi départ fukki minute la the plane will begin boarding in ten minutes wait boarding time was changed wait boarding time was changed xaaral avion bi waxtu bi noonu dafa changé de dégg nga duur waxtu bi nga ko yaakaar de boarding time mooy waxtu bi nga xam ne la avion bi di nit ñi di yéeg ci avion bi di dem ok what happened again what happened again what lan mooy xewaat lan mooy xewaat lan moo tax avion bi waxtu bi ñu waxoon ne lay dem demul what happened again lan moo xew mooy what happened okay why the time was changed wala why was the time changed lan moo tax waxtu bi changé wala ñu changé waxtu bi ok what happened again lan moo xewaat what happened to the airport lan moo xew ci aéroport bi what happened to me lan moo xew ci man lan moo ma dal I don't know because I am not the pilot I don't know maa ngi jégul nag dama xaw a soj I don't know because I am not the pilot ah xamuma kay ndaxte man nekkuma kuy dawal a pilot mooy ki nga xam ne mooy dawal avion bi I don't know what happened to the airplane xawma lu si aéroport lu xew si avion bi I don't know what happened xawma lu xew nag because ndaxte I am not the pilot ndax man nekkuma ki nga xam ne may dawal ok I don't know xamuma now what can we do now what can we do now what can we do waaw léegi nag lan lañ mën a def ñun now what can we do léegi lan lañ mën a def now what can you do léegi lan nga war a def dégg nga wala lan nga mën a def boo demee ci benn étape bëgg jàll si ba beneen étape bëgg laaj ci nan nga war a def mën nga wax what can I do now what can I do léegi lan laa war a def ok dañ la tegtal ok let's go to book a ticket let's go to book a ticket fii waxoon naa la démb ni book fii du tekki téere bi ñuy jànge wala livre li mu tekki ci sens figure bi nga xam ne moo am ci airport mooy wut ticket wala jënd ticket let's book let's go to book a ticket wala nga ne I need to book a ticket boo dikkee loolu ngay wax I need to book a ticket dama bëgg am ticket I need to book a ticket where is your passport where is your passport question wala may I see your passport ndax mën na maa gis sa passeport wala ana sa passport where is your visa where your luggage where your bag where do you want to go fan nga bëgg a dem dégg nga where is your passport ana sa passport it's in my handbag mën nga ko wax it's in my handbag moo ngi si sama sac à main it's in my bag in my bag moo ngi ci sama sac it's in my wallet moo ngi ci sama um, wallet mooy si poset bi ngay def porte-monnaie bi wala it's in my pocket moo ngi ci sama poos it's in my moo ngi ci sama okay it's the time to go to the airport li tim beneen waxin the time to go to the airport booy waaj di dem man nga wax li it's time to go to the airport mooy ah waxtu dem ci aéroport bi nag jot na boo ne it's time to go to work mooy waxtu liggéey jot na waxtu dem liggéey jot na it's time to talk to you nag eh it's time to talk to you eh jot na nag ma wax ak yow wala wax ak yow jot na it's time to talk to you léegi nag ñu imaginer ne ñëw nga hi hi how can I help you how can I help you hi ki ci nekk ki nga xam ne moom ngay mooy trouble exchange bi ki nga xam ne mooy liggéey foofu mën na la wax yi how can I help you lan laa la mën a defal wala lan nga bëgg ok déglu bu baax I'd like I would like, I'd like to book a ticket to Senegal. Hey, I would like to book a ticket to Senegal. I would like to book a ticket to Paris. I would like to book a ticket to Canada. I would like to book a ticket to United States of America. I would like to book a ticket to Russia wala to Germany wala to Italy. Dama bëgg ticket bu nangam nangam. ok déglu bu baax li tax ma def nii what kind of ticket do you need what kind of ticket do you need yow da nga ne ticket bu jëm senegal nga bëgg waaw ban ticket ci ticket yi nga bëgg what kind of ticket do you need what kind of ticket do you want to book wala do you need to book ban ticket nga bëgg ok léegi ñu posé beneen question how many tickets are available available available how many tickets are available waaw how ñaata ticket moo moo valable moo disponible moom ngeen am ok ñaata ticket mooy dem Sénégal how many tickets are available ñaata ticket moo valable donc dañ koy def noonu pour nga mën a comprendre mais balaa nga dem war nga xam tekki yi voilà ok ñu continuer lu mel ni luñ la war a mën a tontu si question yi nga posé one way ticket am na if you want to stay there am na ticket boo xam ne one way ticket buñ ko waxee mooy ticket boo xam ne boo ko jëndee boo demee du ne da ngay dem rek ñëw même booy dem ñëw du ne si même vol ngay demee ñëwee ok boo xam ne da ngay dem pour des fa. if you want to stay there mooy boo fa bëgg a des maanaam ticket boobu li muy tekki moom laa def si entre parenthèse bi nga bàyyi ko xel one way ticket buñ ko waxee loolu la ok return ticket buñ ko waxee moom itam am na mooy if you want to go back ok da nga jóge dëkk Sénégal dem ci beneen réew boo bëgg ñibbi Sénégal ñibbi donc return ticket lañ koy wax mooy tourner ticket boo xam ne da ngay okay return ticket if you want to go back mooy boo bëgg ñibbi boo ne am going back home mooy maa ngi dem ñibbi kër ga am going back dégg maa ngi dem ñibbi maa ngi delluwaat back nag mooy ginnaaw round trip ticket mooy if you want to go and come back in the same time round trip ticket trip newoon naa la démb mooy tukki ok round trip ticket mooy boo bëgg a dem ñëwaat if you want to go and come back boo bëgg a dem rek ñëwaat dégg maanaam ci même vol ngay jël waaye même vol buy ñëwaat ci ngay duggaat ticket boobu noonu jarul booy ñëwaat doo daggaat beneen bi nga benn bi nga takkoon daggoon mooy valable pour nga mën a demaat muy benn ticket ok Ali let's book two tickets Ali let's book two tickets kon Ali nañu wut ñaari ticket let's book two tickets ok nañu am ñaari ticket nañu jël ñaari ticket wala nañu jënd ñaari ticket ok wala ñaari ticket lañuy soxla let's book two tickets ok ñaari ticket. déglul bu baax lépp ci pratique pour nga mën ko comprendre incha allah ci boo toppee méthode biñ biñ koy defee one way ticket for me you know one way ticket for me one way ticket for me benn ticket boo xam ne mooy one way bi pour man one way ticket for me ok one way ticket for me benn ticket bi nga xam ne one way la mooy ni ma ko waxee sànq boo xam ne da ngay dem rek te du ne da ngay ñëwaat da ngay dem rek fa demee toog fa wala booy ñëwaat du même bor moo lay indi maana du même ticket mu lay indi one round trip ticket for my mother one round trip ticket for my mother benn ticket boo xam ne dem ñëwaat la boobu nag for my mother ngir sama yaay. ok ci beneen ci travel agent li nga xam ne mën na la ko laaj may I see your identification may I see your identification may I see your identification ndax mën na naa gis sa identification lépp loolu nag mooy sa information passeport visa yooyu yëpp lépp loo xam ne si yow la aju carte d'identité lépp mooy identification wala sa ID mën nañuy wax may ay CEO ID bu ñu waxee may ay CEO ID mooy ndax mën na maa gis li nga xam ne moo leen mooy pour bi ne yow la maanaam mooy sa identification passeport lépp lu aju si information passeport yes here there yes here there yes waaw ñoo ngi nii wala yes here it is waaw moo ngi nii ok bye bye